lépp lu ñuy jéem a améliorer rek moo fi gën a jaxasoo di ko mën a tabax. lépp lu ñuy gën a améliorer moo fi gën a jaxasoo. waaw lu lépp lu ñuy yaakaar mën a améliorer lépp lu ñuy yaakaar mën a tabax lépp lu ñu yaakaar mën a defar moo fi gën a jafe waaye nag ngeen jéggal ma. Ah. mais lan ngay bind lan ngay bind fii bu nekkee comme tàggu ci jaxasoo. xëy na dina fi am njëriñ suba quoi. tàggu picc jaxasoo. waaw bu mu bu noo benn comme tàggu picc ni ta euh, picc di ranger euh, tàggam. jaxasoo xëy na dina fi am njëriñ suba mais tey tey loo bind tey

ñu ñu ñu mën a yëgee rek eh, di ko wax ah, mu mel ni lu jaxasoog tradition et que ñun ñëpp dañoo wax a jaaxle di yëg lu metti mais waruñu jaaxle di yëg luy avancé te lii dañoo xamatul lu metti fan la féete xëy na nag ñoom duñ ko waxee nii eh, ci brut bi ko ci waxtaan suñoo xoolee lii nekk ak vocation yi nekk waaye nag ci biir loolu di leen ñaanal ak li woon seen yéene yàlla na tamit idéologie bi waaye gis nañ ne mm. mbir yi daal ñu ngi jege kon nag ku ci ak tey ak li ne ñaan di ñaan jarul lakk ne mbir mi xëy na bés dana ñëw daal pour bañ a découragé ak ñun durant suñu enfance yëpp tamit li ñuy jot a xayma ci atmosphère bi nekkoon benn yéene e, bëggoon tamit di ko di si delloo njukkal sax même européen maanaam dëkkandoog ñoom di misère ñoom même misère bu ñuy yëg même coono bi di ko yëgee ci euh, afut yal na lépp gën a leer daal léegi nii lan nga bind fii pour éviter les pour éviter l'esprit un peu européen ci yenn vocation mais immédiat bi may wax je m'exprime mal hein. je suis pas un bon expressionniste loolu moo xaw a xëy na jaxasoo ak lii ne parce que su doon kenn du wax l'immédiat di ñuroog euh, voilà indiwutul ci jàmm quoi la bëgg a wax. parce que lu tax parce que wax dëgg yàlla dafa nekk wax yu xaw a détaillé te togguma ci confort boobu ma doon wut ay confort bi c'est pas une exigence ki ma ko mën a defal xaw na jéggi dayoo li nekk xaw ma ndax am naa raison mais nag mën na ma waa Sénégal. waaw esprit européen mooy lan. bon esprit bon dëgg la ci benn côté ak tey xëy na dialectique entre noir africain ak euh, européen qui li vivre, vivre ak euh, convivialité bi ñuy vivre ñu gën a améliorer daal coopération vous voyez, coopération boobu néanmoins qui gis-gisu peut-être sax ñun li ñu seetlu ci nature bi ci lépp lu ñu jàpp lépp vivre quoi ci démographique atmosphérique bi

respect tuuti ci nit quoi mën a saafara yenn parce que am nañu ñu raw loolu mën lu ëpp loolu wax dëgg yàlla dañu xaw a yërëm sax ci suñu situation kon nag man yaakaar naa e, suñu xalaat de loolu war nañ xalaat que ne léeg-léeg ñenn ñi dañu bëgg a modèle wu ci yenn maturité yi day màgg ci yeneen yi mu yàlla na doon wërsëg tamit quoi di xoolaat yenn yi toujours balaa ñuy aplanir defoon naa ne loolu moo bettul fii ñu bare quoi

tay situation bu jege ci entrepreneur maanaam euh, suñu kilifa yi nek ci intergouvernance bi maa leen di dellu njukkal waaye gën na jege te yaakaar naa ne dafa jot lool ñu wax ko sorel parce que dañuy naxaw lu di deewu asag naa di yaxu entrepreneur nan la leen jappalé bañ jëm kanam ay ah, entrepreneur entrepreneur euh, manam intergouvernance bi wax ñu yëg né grâce à idéologie lu mel ni grand holding tabax bi et suñu avancement néanmoins ci inconvénients yi am eh, diggante même petit train ferroviaire bi ak eh, li manam zone Yoff bi ba aéroport tay amel Sénégal mu nekk lu lu jaaxal góor gi Macky Sall te wax dëgg Yalla góor gi Macky Sall mënu si génn waaye li ñu naxal ko mom moy togaay bi nga xamné intergouvernance bi dafa bëgg a né asak na naa ba cosaanoo woon tradition yi yëpp ci valeur 10 km carrés